wax leen yéen ñëpp alhamdulilah yéen ñëpp bàyyi nee nañ wax alhamdulilahi rabbil alamina ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen ñu ngi nekkoon ci lef moom mu am solo la te ma ne woon dañ koy juutal muy Mawlaay Cheikh Alxaaji Mouhamad Zeynab ma ne góor ñiñ daan waxtaanee sax kenn mënut leen a jeexal ci ñaari ajjuma waaye bu ñu waxtaanaan ci ñoom ñaari ajjuma rek dañ koy jéem a close tëj ko xëy na demaat ci ñeneen waaye maam Mouhamad Zeynab moom duñ ko mën a close ci ñaari ajjuma li ko waral mooy maam Mouhamad Zeynab riche na lool ñeneen ñëpp riche nañ waaye dafa riche lool Mawlaay Cheikh Alxaaji Mouhamad Zeynab mi nga xam ne képp ku ko xam nangu na ne maam Alxaaji Mouhamad Zeynab lu nit di bind ci këyit lu ñuy liir ci këyit war ko xam war koo mokkal jëriñu ci El Hadj Mouhamad Zeynab Moulay Cheikh hmm. te loolu ñu ko seedeel ñu weexan ca ñu ñuulan ca hmm. Cheikh Alaaji xam naa ne bu ñuy jeexal waxtaan bi hmm. li nga ma laaj léegi danañ ci xuus lool xam naa ne waxtu ajoo bi di ñëw moom bu ñu fekkee ñaan naa ñu teel a ñëw ndax buñ ko waree close danañ dugg bu baax ci askanam pour nga xam ne Mawlaay Cheikh Mouhamad Zeynab doyloo wut ne man de alaaji abdullahi moomu jur moolaay hmm. cheikh alhaaji mouhamad zeynab doyloo wut ne man de ci famille ñaseen la bokk waa jolof la hmm. man shérif la dégg nga ko doyloo wut loolu de hmm. waaye nim def ci am njàngam ba xam-xam ñëwalee ko noonu nim respecté xam-xam nim déggee arab nga xam ne dafa tumuranke suñu tund wi maam mouhamad zeynab moomu dégg nga ko lu tax mu mel noonu gannaaw may yàlla parce que sabab fi lañ ko fekk Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu décrire yi muy décrire maam Alxaaji Mouhamed Zeynab dana tax yow nga bàyyi xel loolu yaakaar naa Cheikh Alaaji miin nga lettre Alaaji Mouhamed Zeynab bi bàyyi bind ci Jawaahir Rasaa'il boo demee ci chapter 21 moo ngi koy wax naan ko fayasilul dégg nga ko kitaab ilaa yadi aizzi nnaasi wa alaahum makanatan indi leetar bi dana egg ci ki gën a tedd ci nit ñi gën cee kawe palaas ci man mm-hmm. bàyyi du naxante du ragalante gannaaw mm-hmm. lépp li Cheikh Ibrahima wax rek amut lum ci nam li mu bëgg a wax lay wax mm-hmm. am nga noppi dégg wala amoo noppi dégg moo ci ne ki gën a foor ci nit ñi ci moom mi ngi yaakaar naa wax naa la keroog ne maam alhaaji Mohamad Zeynab boo demee ci àqdul kiram doo gis sax wax naa la ne bu ñuy lim tarbiya mën nañoo wax ne diw sàngama ko di jiitu diw sàngama ko jiitu diw sàngama ko jiitu waaye nañ ko tuddal li cheykhaan yi waxal boppam ne wax na ko saddaqtu bil faydi min ka muz atayta walam yunkir li faydi ka indi dëhër xayru shaqi parce que moom dafa yàgg ittewoo xaar cheikhul islam bàyyi ne ki gën a fort ci nit ñi gën cee tedd gën cee kawe place fa moom waaye wa mahallul ulumi wal asrar mu ne alaaji Mouhamad Zeynab place yi mboolem fànne xam-xam yi la maanaam mm-hmm. la maam alaaji bi muy dénkaane lan la wax mm-hmm. mu jël téere yëpp daal di jébbal alaaji Mouhamad Zeynab naan ko dencal naan ko dencal kuy sàkku xam xamal ko bul ko gàntal kuy sàkku téere nga jox ko kaamil mm-hmm. kon loolu rek maam alaaji mi ngi wane ne mboolem xam-xam boo xam ne dañ koy ooxee ilmu diraayati di ko laal maam alaaji Mouhamad Zeynab moo ci raw kudut moom su ko defee lim amoon ci xam-xamu zawq bu ñëwee jaxasoog borom jamono du ci nekkati morom du ci nekkati morom parce que ñaar yi mooy mën a ànd ji jot mboolem càkkutéefam ilma zawqi wa ilma diraaya maam alaaji amoon Zeynab bu rawoon ci ñaari lef yëpp du ñëw ci bàyyi waaye dafa raw ci lef mii mu gis ne am na kum gis muy wax lu nekk ci diggante kiit yi loolu ko booleeg Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu te bàyyi képp koo xam ne bëgg nga jàngale nekk ci diggante téere yi boo ko gisul dana la ak koo mën a doo ak ku la mën a jur ak ku la mën a Zeynab bàyyi ne wa mahallul ulumi wal asraari mooy palaas yi fànni xam-xam yi ulumu ak ilmu dafa ute wal asraari ak mbóot yi ak mbóot wax naa leen keroog ne bii maam bi ñuy jël secret yi ci maam Cheikh Oumar fay moom moo wax bàyyi ne ko man la suma baay binduloo woon mbooti mm-hmm. radiyallahu an yaa ngi dégg bàyyi waaye xoolal bàyyi lim ko ci tegal xoolal lim ko ooxee ba pare mm-hmm. ba pare ko ci tegal ne ko woo waladi mm-hmm. woo waladi tey sama doom kon bayit bi ñu nar a wax si keroog wax nga ko Cheikh Alaaji bi ñuy tàmbali ne seedeel na bàyyi ne ko ونحن من أولادك في الحق بايك وخ نكو ولدي كون باي نانغونا ني الحاج محمد زينب دوم اك ليم كو ماغي دنگو مونيكو واي وعهدي وعهدي تاي كولري كو خامتيني ني تباي بي تاغ دو ساغ ني كولري شيخ ابراهيم رضي الله عنه نكو الشيخ بجميع المراتب تورو باي لا خامن كين baat bi sumu ko liran banex bi ma am sama xol moy damay fatali ne damay damay damay ku ne yalla rek moy rahim yalla rek moy rahim bu jele rahimum gi dego ko war ko rangal kenn dana la hóor ne dafa bëgg kooku tay yonent bi rek la ko rangal bil muminina rahufur rahim dégg ko hmm. cheikhul islam maulana ala ibrahim legole nga deg mu ne mu ne la sama sirru ne ma mhm. Ibrahim mhm. kon sirru bàyyi lan la bàyyi la mhm. bàyyi wax waaw léegi foofu li nga fi mën a jàngee mooy Ibrahim mooy rahmaniyatu bàyyi mooy rahimiyatu li ma la ko gën a jegeel nga gën koo dégg mooy bi waa ji feebaree am bopp yu métti xam seen borom dañuy bëgg mbëkk miir wala di daanu bi mu egsee néeg bàyyi ci nettali suñ sëriñ Sas Ibrahima Mahmoud Diop dafa ne bàyyi daf ko ne ko tuddal sama tur pour nga wér waa ji naan baay baay bàyyi na ko dangay ngay dee de man tudduma bàyyi de parce que raxiimi yitu gi ci la ko jaare te raxiimu yéen jànkate naxu yi nu ngeen koy firee yàlla mi yërëm jullit daal ci àllaaxira noonu la ko firi kat yi di firee kon raxiimi yitullaahi gi du ñëpp la ko sedd de waaye raxmaani yitu gi moom kooku ñëpp mën nañoo naan fa ana raxmaaniyatul ilaahi inda man yuhib wa naarun li taridil mujaadili yaa ngi dégg kon mbir mi noonu la demee cheikh mouhamad zeynab bàyyi na ko a cheikhu bi jami il maratibi bàyyi rangal na ko maqaamam waaye gannaaw bu mu ko defaree ba pare a cheikhu bi jami il maratibi sëriñ boo ko xam ne foo ko fëgg rek mu yulli la naxoon fa moom te loolu Seydi Aline rangaloon na ko bàyyi ci kaasiful albas wa cheikhu bi jami il maratibi wa cheikhu bi jami il maratibi looloo tax ma wax la loolu ma ne la sëriñ boo xam ne cheikh la bi jami il maratib tudoo bàyyi lañ ci xam parce que baay daf ko jëfee ñu tuddee ko ko. Mhm. Seydi Ali Cissé moo ko ko tuddee. Mhm. Baye jël tur tuddee ko moom moo tax ma daan faral di wax ne. Mhm. Baye danañ ko bëgg le parce que moom dafa présenté yàlla nit ñi yàlla présenté ko nit ñi. Baye wanul nit ñi boppam yàlla la wan nit ñi yàlla wan Baye nit ñi la xëcc yàlla xëcc ci bañ egsi. ci mooy leen Baye ngi nii bëgg leen ko. moo tax danañ ko bëgg de force. ku présenté nit ñi yàlla yàlla dana la présenté nit ci dara te bu la présenté nit ñi bàyyan foos nit ñi dañ la bëgg yaa ngi dégg yal na yàlla may ñu bëgg bàyyi gu mat sëkk gu amul yaa ngi dégg bàyyi ne ko saaxibu xaraibil adwaaq mooy li ma la doon wax léegi borom mos-mos yi tumuranke yi yaakaar naa leetaram bi ma la doon jàngal keroog man sax am na ñu ma ne sëriñ bi day lakkam yi comme du arab du arab allig ulukati imam al xayr dégg nga ko fii diini hida chaqri no faqri am na ñoo xam bu ñu ko déggee dañ naan lii moom mooy lan yaa ngi kon bu bàyyi ulumul azwaq moy xam-xam yoo xam ne liir téere taxut nga am ko. mos rek. mos rek. waaw la su ko rija waxoon. wallaahi kutubi wa dafaatiri ilmun fi suduri rijaal fi suduri rijaal moo tax bàyyi ne saaxibu azwaq borom mos-mos yu tumuranke yi te maam Mouhamad Zeynab ñi xam taarix yëpp xam nañ ne nekkut ne. dafa ñëw concentré wu ñu jox kurus xam nga maam Ousmane Ndiaye bi nga xam ne moo ñaareel ñi tarbiya mm-hmm. ñëpp xam nañ ko tarbiya na fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñaar la maam Ousmane Ndiaye sama mm-hmm. loolu moo ko bindal boppam moom moo ko bindal mm-hmm. moom fi mu soobu weer yi mu soobu dégg nga ko ak bis bi muy fukki fan ak ñaar maam Mouhamad Zeynab kenn du fekk ci loolu taarixam ndax daa nga dégg ci sëriñ bi Mawlaay Cheikh Ibrahima Mahmoud mu di ko nettali. gërbëtal fasam dugg ci néeg bi. waxtu sàngam balaa waxtu sàngam bàyyi génn ak moom ànd ak moom ci jumaa ji. fekk wàcce na ca naasur bu yàgg. waaw tarxee nañ dogal nañ ko ijaaza bi jox ko mu yóbbaale biir bi rek a man na. Hmm. affaire bi ku weddi ne bokkaale amul. lu bàyyi daan wax papa bu koy gàmmu faral mu ne mu ne mu ne mu ne bilaal ne ahadun ahad ñu ne bàyyi ne tànk ba gaaw na di. Hmm. waaye ku ko weddi kay na xool mënaan na muy nampale doom ji. jeex na xool rek. xool rek boo bokkalaatee dafa am ala xaal léeg-léeg nga dégg ñu ne ah kay ñun buñ bëggee buñ bëggee motiver ndaw ñi nañ leen wax ne jàng mooy tax xam mm-hmm. waaye may am na de mm-hmm. Mm-hmm. waaye may am na de cheikhul islam su fekkoon ne mën a jàng moo koy jotale ci fayda du ko fi fekk dafay fekk ne borom fayda jël na fayda ñu taloon ci njàng lu nekk la fi bàyyi fekk bu doon jub dégg ko bëri wilaaya dégg nga ko mën ko bëri ay rabaki jinne xam-xam-xamu garab reen mën sunguf mooy jotali nit ci mbiram faydu yaa ni ñaan gu nangu bàyyi du ci jot dégg nga ko que gaa ñi rek fekk mhm. Sénégal a Gambie gii góor ñi fi neexoon kenn xamut ñan lañ ci njub ak mbaax ak xam-xam ak toog dañuy naaw mm-hmm. yàlla daal mooy defee ci mattayam gi ci mattayam gi mm-hmm. su ko defee yàlla moom di def ci mattayam gi Cheikh Ibrahima wóor na ñun dund di ay magam ak rakam ci biir kër maam alxaaji Abdallahi ne bàyyi ña si lii mu am du am njàng ma jàng bëgg dee mm-hmm. bàyyi wax na ko de bàyyi nee na man damaa liir bay bëgg a waaye nag du mën a liir kese mooy tax nga xam li Baye Niass xam de maam Ousmane Mariama lu ma waxoon. Hmm. Ibrahima de la ma ko dégg muy wax. Hmm. Baye su ko xamoon ne ko wax. daaw ko wax xam nga mbir mi na ko Baye waxee ci rôle adab. waaw ne adduwaa dafa am. dëgg la te mu ne loolu saa wi dootul indi rijaali inta bi. inta mbir mi mën nañu la ko wàll. day rek day ma ne feebar. coronavirus dafay wàllaate. ah waaw. <laughs> dëgg la xaajul nga dem ci hôpital bañ a feebar nekk. Ah, appeloo dégg nga ko alors su ko defee da ngay gis sax taalibe Cheikh Ibrahima mu sañse dara ji rafet macha allah compartiment xëy lu neex. ndeysaan service gi dañ ko koo wàll. ku ko wàll bàyyi. bàyyi man bàyyi mi yàlla xee. yàlla mi lan inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. wa quwatul madat. dafa dafa am doole. Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop daf ñu daan jàngal mu ne. welo soo ko waree boo pétaalee dafay gën a gaaw sa dox bi. mu ne waaye boo waree mobilette dafay gëna gaaw weeru mhm. mooy comme engin yi tey mun ngaa wax euh, jakarta wala yu mel mhm. dafay gën a gaaw ne boo waree oto dafay gën a gaaw lool mhm. mu ne waaye xam nga ne oto lu mu gaaw gaaw boo waree plane avion dafay gën a gaaw lool avion lu gaaw gaaw fusil fusil yooyu di def far naaw naaw yu gaaw yi moo gën a gaaw avion mu ne waaye léegi jëlal gaaw yooyu yëpp nga monte ko ci doole yàlla ci ah. mu ne temps amati <laughs> ndax espace amul ah bu boobaa wax biya la wax biya lay affaire ba di doon Mawlaay Cheikh Alxaaji Mouhamad Zeynab bàyyi ko wàllu loolu waaw bàyyi feebaram bi la ko wàll moo tax mu tuddee ko cheikh bi jamii al maratib ba pare di saaxibu garaibil azwaq ma ne borom xam-xam yi nekkoon Égypte ak ay Saudi Arabie Hijaz tout court noonu lañ daan waxee bàyyi dañ daan wax ne bàyyi dégg nga ko tum da ni muy waxee xam-xam dafa tumuranke dégg nga ko léegi rek maa ngi déglu ku mel ni Cheikh Abdou a di ko wax mu ne mu ne mu ne euh, Saudi Arabia yi Hijaz bi bàyyi taxawee ci congrès bi gars yi ne gars yi ne lugal arabia dañoo bëgg a def benn décret ne langu arab na nekk lu ñuy wax rek waaye buñ ko bind si suñ constitution yi buñ bu mu doon loo xam ne dañ koy bind dañ koy bàyyi jóg taxaw yëkkati loxo ne du am faqtuluuni rey leen ma loolu du am ci Arabie Saoudi la bay taxaw mune lolou du am ray len ma uqtulu nii rey leen du am cheikhul islam alhaaji ibrahim radiyallahu anhu xoolal alhaaji ibrahim legi rek lolou la wal maulana alhaaji mouhamad zeynab dégg nga ko li bi danañ ñëw sax moom alhaaji mohammed zeynab ci adjam nga nga xamne lu reey la def ci yoon bi dégg nga ko dana dana dana am solo parce que danañ la netali ba fa ko bo waxe nako na ndaysan mawla Cheikh Sidi Arab domam moy oti ni yakarna man nañu ko jël. mu and mu mu commentaire incha allah ñu delluwaat. Euh, Baye. salaamaaleykum ya yaa ngi ñu fekk yaa ngi ñu fekk ci émission bi yaa ngi direct ci aja bi nag. Ah, waaw yaa ngi direct ci radio bi ñi déglu. <laughs> الحمد لله ميسان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رضي الله عنه رضي الله عنه من يا رب إيه. di leen ndokkeel ci at mu bees di ndokkeel di leen ndokkeel ci at mu bees bi. jërëjëf Niass. di ziare mbokki mbokki taalibe yi nekk ba lépp. jërëjëf Niass. tey rafetlu seen juhut yi nga xam ne yéen a yéen a koy def. jërëjëf Niass. di fàttali di di fàttali ko wala yàlla yi ak seen seen dundin. ndeysaan loolu rek te loolu rek am njëriñ. dëgg la. Eh, ko alquran waxee inna nahnu nuhyi mawta wa naktubu ma qaddamu wa asaru ñoom ku leen di fàttali ko dëgg la amma xaj ma ma leen kum di wax nag ci xam-xam rafet lii moom li li ci ëpp ren bu taxawee ci lenn ci ay bindam bëri woon noonu noonu noonu ñu ngi ko jël ci ci gémmiñu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu radiyallahu anhu waaw moom mi ngi foofu ci Taïba Niassène nga xam ne diggante na du passé ay sept kilomètres yooyu dëgg la foofu la juddoo mhm. euh, wax nañ ne bési àjjuma la judd est-ce que mi huit cent quatre onze ndeysaan 1891 nga dund juróom fukki at ak juróom benn génn àddina 1947 mooy juróom fukki at ak juróom benn loolu mooy li wér dëgg la ndax soo delloo ci Mawlana Cheikh Cheikh Ibrahim moom koy marsiya daf ne lillahi ashraqa lillahi ashraqa in turid taarixahu wal umru yawmun yazdahi bil asjadi muy xam nga yow yow moom boo ko cinquante cinquante six ans la lay jox. cinquante la waaw. Hmm. mooy mooy xam nga xam nga yaa fukk la. mim hmm, quarante. Oh, hmm. quarante. dëgg la juróom benn. dëgg la. loolu diiru fukki diiru fukki at. dina ko kii at ci lettre yi alxuraan. est-ce que. teewul ci moom. ndeysaan. moo moo ko xal boppam ci papier boobu moom xam ñàkk mu gis ko. mooy boobu muy wax ne أبى الله إلا أن يكون ذو الكبر على غاية الحرمان في كل ما قطر لأن رداء الكبر ثوب إلهنا ومن نازع لا به آل في خسره شيء بيوران كاس المختار من جاء ناهيا سلوك طريق الى والبدع والكفر وجبير نقل وخنان اما الفصحات الكتاب حفظنا كتاب اله العرش من مبلغ العشر وفينا خصال شاهدات باننا الى العرب العرباء ننمى بلا نكر الله اكبر الله اكبر

parce na Abdul Mutalib am na am na kum doonoon. rax moo tax loolu daan tuuti. et ba moom nag comme ni ma ko waxee ci fukki at la wattu alquran. wax ci loxo baayam. juróomi at juróomi at jàng xam-xam ñu ne dajal ñu fukki at ak daal. ñu ngi am amee fukki at ak daal la dajal ci la da jàng mboolem lu muy jàng ci la xam mboolem lu muy xam. laay la suñ benn mag suñ doon benn doone baay. Hmm. Euh, ku ñuy wax mbay daara baay amoon ñes bu moom laaj moo ko jur. mu ne mu ne maa amoon ñes. nga demee sax ma ne maa ma ne baay amoon ñes mu moom laaj. Hmm. mu ne moo leen wax ne leen El Hadj Moussa bu fukki at ak juróom ci la jàng alxuraan ak xam-xam lépp. laay la xam mboolem li mu xam. Hmm. dëgg la. yaa ngi dégg yaa ngi dégg moom laa la Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wax mu ne ci ci benn waay waxtaan bu mu def comme noonu defee ko ci zaawiya Imaam Raji. benn mm-hmm. leelatu Ashura muy wax muy wax muy wax turam tuddee bàyyam ñaan ala yàlla yus. te mm-hmm. sancoon barab bi doon góor lool. Mm-hmm. ne Alaaji Mahamad Xalifa ne Alaaji Babacar nga xam ne moo doon dimaani jàkk ci. loolu daf cee teg ne alaaj maama Zeynabu mu nga woon ñëpp ci xam-xam. dëgg la dëgg la. beneen beneen beneen waxtaan mu ne mu ne mu mu dem ci bare bare bu bind na xalam mboolem téere jamonoom mën na koo bindaat ci mokkalam nga. ndeysaan. Mm-hmm. Mm-hmm. allahu akbar. te te loolu waa te loolu bàyyi Cheikh Omar Touré bi ngeen xam foofu la faat. Mm-hmm. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. moom mos a wax benn benn benn benn bés benn benn cent soixante six. fekk bàyyi bàyyi Ndiaye Niass. hum hum eh, Mawlana Cheikh Ibrahima moo moo ma fa yónnee boobu mi ngi Ndofane. ba ma demee ji waxtaan ma yow ma ne ko dee xaw ma ko de xam nga wala mosu ma ko gis mu nag ba mu yàgg mu ne ma mu ne ma mu ne ma cee xam nga li ngeen di wax yéen ko ne li ngeen ma ah ma ma ma ne ma mañet doon la. waaw ma. bi lépp lu ci dal moom kon lépp lu dugg ci koom bi dina ko dina ko fàtte. waaw mboolem mboolem benn ak benn bu la ci jàngal loo xam. dëgg la. bu dalee nga naan gaaw rek dégg nga muy muy tari boo ko rek dama tey bi nasra wala wala wala nasmu la damay tari rek ba nga rek ko doy na. ah waaye man waaye amul benn téere bu muy bind ko xool. c' est waaw loolu mooy mooy mooy dolli. mooy moom président Cheikh wax. Mhm. loolu moom la dëgg la. moom waaw. dëgg la moo tax wax bu daan bu ak naari naari gànnaar yi. Mhm. seen seen bindkat yi ak seen waykat yi. Mhm. maa an ba ba misli. ma seen bàyyi seen alquran la woon borom xam-xam la woon dëgg la nee na mu ne mu ne mu ne alaay dafa mas wen teg moom ci xam-xam moom yàgg mu ne ko gis nga ku ñu ñu àndoon maag yow ci gàtt ci wër gàtt ci gàtt yi naa yi borom xam-xam yeeg waykat yi munoo ko boo boo waxee mu wax ci ci kanam gëlëm gi waaye dégg leen suma sëriñ si laa ilaha illa moom moom moom ci ci ci doy maama ji yéeme dëgg la dëgg ñoom ñëpp a yéeme waaye ci ñi ci gën a yéeme la bokk moom bàyyi bàyyi am seen seen waaw seen bàyyi yéeme loolu dëgg la. waaw xam nga. Hmm. kaa bàyyi ko ki fi bàyyi ko. Hmm. kaa bàyyi ko. te ñu bëri bon. ndeysaan yow yoon euh, kayit yooyu. dëgg la. Hmm. dëgg la. moo tax lu ci na kii am na benn sëb moom day gëstu day dañuy gëstu ci borom xam-xam yi soo jant yi. Mhm. dégg nga. wala mhm. maa wala maa xarab afriqiya. Mhm. nañ ko ci bo ah, boole ko ci ñi raw ci ci ci soo soo jant. dañ nekk ci moom lu bari ñoom gëstu bu doy waar lañ ko ci moom. laa ilaaha illallaah. Ah. indi nañ taarif bi ak at bi mu juddoo nangam nangam lépp dañ ko ñoom mool nañ ko waaye muy kawet ñoom tuddal nañu sax ñoom ay diwaan hmm. waaw kuwet moo sët ba daptil koy wax ah ñoom ñoom nañ ko sax ay waaw moo sët daptil koy wax ñoom nañ ko sax ay ay ay diwaan yoo xam ne mu ñu mosuñ ko man mosuñ ay ay nañ ko ay ay yu bëri ah xam naa yàlla defoon doxba ak ba bees dañ dem seeti leen jéem a jéem a gëstu ci ñoom. waaw loolu moom dana doon am solo lool. waaye na ay waaye na lu bëree bëri bëri bëri ci feebar bi. dëgg la bëree bëri ci ci ci feebar waaw ci feebar bi bind na ci lu bëree bëri bëri. ndeysaan man li ma gis. lépp man man naa ci fa la ko bind. xam nga moom mama laaj ko bàjjir boobu. dëgg la dëgg la dëgg la. bàyyi gi wax mu ne moom mu ne ñi mag ci doomi bàyyi bi ñoom ñëpp. Hmm. ñi mag. Hmm. ñëpp ñoom ñëpp Gàmbi lañ waaw loolu dëgg la waaw loolu dégg naa ko ci. mooy li lan nañu bàyyi dëgg la waaw ko dalee ci bàyyi suuf. dëgg la dëgg la. dëgg la Gàmbi bokk lañ dëgg ñoom ma. ndeysaan dëgg ñoom maam Hadi ñoom seen. dëgg la. mu ngoog Baye Dóor na la ah Sénégal la juddoo mu ah dëgg la dëgg la dëgg la allah Baye yow lii dinañ ko dinañ ko soxla ci gën a yaatal incha allah dina ma jaral dinaa ñëw toog foofu bu soobee yàlla. Euh, fi temps bi sax daanaka jeex na nii waaye yiñ ci indi dafa am solo am solo goo xam ne euh, boo duggutoon du doon baax sax. <laughs> macha allah ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax. xam xam na ñu ngi lay dokel bu baax xam naa su ma génnee. njëkk njëkk njëkk fayda bi njëkk bàyyi oo rek yooyu yëpp. ndeysaan gannaaw bu bàyyi oo rek sax maa ngi gis maa ngi gis benn lettre bu mu doon bind benn taale bu fi ñëw nit ñi bi mu yóbbante دقلة دقلة دقلة إلى فتية في في قد وطن سلام سليم للوداد مبين أبو عرف من آه، الفسك آه. كان <laughs> ما شاء الله يو إذا حدث برها في مراضي لا لا إله إلا الله الأولياء ترسخت بجمجمه إذا المرء بسعد أقبل macha allah waaw yooyu yooyu moom danañ ko soxla baay waaw fu ne nii waxtu wee ko yooyu moom danañ ko soxla. incha allah suñu waxtu waa ñu jàmbu waaye nag bu soobee yàlla dinaa la oo léegi ci kanam bu soobee yàlla. wallaay ñoo gën kontaan ñas yal na yàlla guddal seeni fan. dëgg amin amin amin ñes amin ñes amin amin amin ñes amin ñes amin amin ñes amin ñes amin amin ñes amin ya rabbal alamin amin amin ñes amin ñes amin amin ñes amin ñes amin ñun suñu yitte mooy baay barham ñëw leen ñu way baay la ilaha illallah